الحمد لله الحمد لله القائل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وهي وصية ربنا تعالى وقال جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله mbokki ginnaaw bi ñu sante borom bi subhanahu wa taala ci baat bi nga xamante ni moo ko tànnal boppam ne nañ ko ko sante muy alhamdulillah di ko bàkk di ko kañ moom yàlla suñu boroom di wax ni xéewal lim ñu defal moom yàlla buñ ko doon lim duñ ko mën a dajal wa in tauddu nicmatallahi laa tuxsuha yàlla suñu boroom nee na xéewal li ma leen defal su ngeen ko doon lim du ngeen ko man ñu ngi koy dimbali ko moom yàlla di ko ñaan mu jéggal ñu suñuy ñaawtee fi bàkkaar di seede ne képp koo xamante ne de yàlla namm na ci yow ak njub ba teg li ci yoonu njub amul kenn ku la mën a jàddiloo ci boobu yoon yàlla na ci yàlla teg waaye képp ku yàlla seetaan ci maandu téem ba nga jàdd boobu yoon amul kenn ku la mën a tegaat ci yoonu siraatul mustaqim yal na ci yàlla musal ñuy seede ni amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul moom subhanahu wa taala bokkaale ñeeru ko di seede ni muhammad sallallahu alayhi wa sallam tànnee fam la ci biir mbindeef yi xaritam la moom yàlla wa huwa aminuhu fil wahyi moom la yàlla wóolu tànn ko di doon wàccee ci moom wahyu yàlla na ko yàlla fayal moom ak i saxaabaam ak képp ko topp njubu seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba yàlla di doon suufam si ñuy dénk suñu bopp di leen dénk ragal yàlla muy dénkaane bi nga xamante ni yàlla moo ñu ko jox mu yóbbal ci ñun su suñu jaar jaar ci kaw suuf ba keroog ñu koy wuy ji mu ni wa laqad wasayna alladina utul kitaaba min qablikum maa ngi leen di wasaaya maa ngi leen di dénk yàlla moo ñu dénk loolu nañ koy ragal fu ñu mën a nekk comme niñ ko daan dénkee yonent yi ñu jiitu woon ñu koy dénk seeni xeet kon yàlla ñu yàlla defal lii di attaqwa mbokk yi suñu xutba yële weesu ñu ngi ko doon amal ci bunt yi ñuy wax at-tahaara muy laab ñu njëkkoon a wax ci al-janaaba mooy sangu set ñu toftaloon ci xutba bi paase lii di al wuduu muy jàpp tey bi iznillahi taala ñu fas yéene ñëw ci ñetteelu bunt bi nga xamante ne mooy buntu laab muy tiim atayam mumu ñuy njëkk di wax ni yàlla suñu boroom moo ñu wax ni yuridu llaha bikumul yusra wala yuridu bikumul usra yàlla lépp loo xamante ni mu ñu koy digal nee na lu ñu lu jàppandan la loo xamante ne lu ñu mën a def la ndax yàlla ne laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha lépp lu ma leen sant rek lu ngeen mën a def la léeg-léeg ñuy firee baat bi yàlla tegul kenn lu mu mënul waaye firi mu tayal la firi mi dëgg mooy li la yàlla sant danga cay dem ba ba ngay tële bu boobaa ca lay soog a wàcc al istitaa fa lay yem waaye lépp loo xamante ni yàlla digal nañu ko rek lu ñu mën la bu dee ni julli yàlla dafa namoon mu nekk lu jafe ci ñun daf naan kon kuy kàbbar doo def nii say loxo jëmale ko ci kanam mais le contraire ngay def kon duñ ko mën bu doon rukon ak rukon ni mu yombee ci nga sëgg ci ni ñu yàlla bindee suñuy articulation yépp yàlla tàggat ko ci booy sujjóot lépp luy julli looy def ci julli melokaanu julli cër boo yabal day dem bu yàlla na moon ci ñun mu jafe kon contraire bi la ñuy wax te duñ ko mën kon yàlla lépp lu ñu sant lu ñu mën la boo ñëwee ci koor yàlla suñu boroom daf lay wax ni ñi nga xamante ni mën nañ ko alqudra wa in kuntum ala safarin bu fekkee da ngay nekk ci ab tukki ci ab tukki wala nga feebar ba mënoo ko mu ne fa iddatun min ayaamin uxar bàyyil ba ca beneen weeru nga fay ko nga soog koo def yàlla bu namoon ci ñun ñu met danaan kon ku nekk ci weer wi na nga koy def nga feebar wala nga ñàkk feebar nga tukki wala nga teew kon yàlla lépp lum ñu sant rek lu ñu mën la moo tax ci ñetti bunt yi ñu doon wax di bunti laab yàlla suñu borom de da cee def ak oyofal ak jàppandal ndax boo ñëwee ci aaya bi nga xamante ni ci la tënk lépp mu ne yaa ayuha alladina amanu ida qumtum ila sola fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsaxu bi ruusikum wa arjulukum ila alkaabayn limal nañu lépp luy faratay julli alayhi salaatu wasalaam ñu jàngal ñu sunan yi mustaxabaat ak lépp loo xamante ne mooy ànd ak julli wan ñu kayfe bi nan la ñuy jullee yàlla wéy ba tey ci aaya bi mu ni wa in kuntum junuban fattaharu loolu nga xamante ni mooy julli boo demee ba sa njàpp firéeku mu ni li ci doon doy mooy nga boo amee ndox nga dem jàpp ji rek mën ngaa julli ji tëj nga buntu làpp nga dem julli ji mu ne na bu dee da nga am janaaba wa in kuntum junuban fattaharu boobu tahaara waxu la da ngay jàpp ji waaye sangu set ngay defe ji ñaar yépp nag ndox moo koy def mu ne wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al ghaid ba tey bàyyiwuñu di ñu yombalal mu ne bu fekkente ni seen jàpp dafa yàqu ba ngeen egg sax ci anam boo xamante ni yéen li ngeen soxla sangu set la te amu leen ndox mu ne fatayammamu sa'idan tayyiban mu ne na ngeen dem ngeen jàpp ngeen tiim day doy sëkk remplacer lii nga xam ne moom mooy jàpp ak sangu set bi nga waroon def kon yàlla nee na lii mu ñu sant bu doon ni def ni képp koo xamante ni sa njàpp fireeku na wala nga war a sangu set ndox rek koy mën a dindi kon fu ndox nekk da nga ko wëri pour mën nga am laab waaye mu jàppandal la ne la bu fekkente ni amoo ndox mën nga jàpp mën nga def li nga xam ne mooy tiim moo tax ci nihayatu aaya bi yàlla mu ni maa yuridu llah li yaj'ala alaykum min xaraj walakin yuridu li yutahhirakum wa li yutimma ni'matahu alaykum wa la'allakum tashkurun neen yàlla dafa bëgg neen dafa bëgg mu nekk diine gi diine gu jàppandal la ci lépp loo woo bëgg a def ci lu mu santaane nga mën koo def moo tax mu lay defal yooyu maraaxil li nga xamante ni mbokk yi nag moom mooy tiim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ni defal nañ ma juróom yoo xamante ni musuñu koo defal benn xeet bu ñu jiitu sama xeet dong la ko yàlla dajal la ko yàlla jagleeloon mu ne mu bokk ci nag lii nga xamante ne moom mooy tiim mu ne ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xeetam wii ñu ne rek la yàlla def koo xamante ni soxla nga jàpp wala sangu set te amoo ndox nee na nga jëfandikoo suuf sii ndax nee na yàlla defal na ma suuf sii mu nekk jàkka nekk tamit lu ñu mën a laabee boo bëggee julli mu ne fépp fu la julli dabee mën ngaa julli ci suuf si soxlawul ngay lal dara bu dee ne bërëb ba laab na bu fekkente ne tamit sa jàpp dafa fireeku wala nga war a sangu sangu set te amuloo ndox mën nga jëfandikoo lii du suuf si mu ne ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dong la ko yàlla def kon atayammumu tiim dafa bokk ci jagle ngay xamante ni yàlla mu ngi ko dencaloon kii di xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam boo ñëwee nag ci sabab bi nga xamante ni moo tax tiim am ndax lépp loo gis rek day am sabab ba ci ayatul qur'aan yi dafa am lu ñuy wax asbaabu nuzul sabab yi tax aay bi wàcc pour joxe benn réponse wala aay wàcc pour joxe ab àtte suñu yaay Aïcha dafa àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak saxaaba yépp ci ab tukki bi ñu demee ba ci yoon bi caq bi nga xamante ni moom la suñu yaay Aïcha takkoon wadd réer ñu koy wër yoon saa salaam daal di taxawloo ñëpp ni nañ ko seet ñu koy seet di seet di seet ba mu guddi yoon saa salaam daal ni ah mënu duñ koo gis de daa mel ni kon nañu fanaan fii te ceeb àll la nañ fanaan fii ba bët set suñu yaay Aysa nee na mu toog yoon saa salaam mu ngi doon nelaw ci luppam nee na am ñu dem ci Abu Bakr Siddiq bii way jur suñu yaay Aïcha ne ko sa doom ji di lim def mooy waxkat bi xoolal ni mu ñu téyee ñun ñëpp fi mu nekk ñu fanaan ci àll bi ndax ca xam Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu ñëw ba ci suñu yaay Aïcha di ko yedd ni mu ko doon yeddee mu ngi koy joxar bi nii waaye comme yoon saa salaam moo tëdd suñu kaw yaay Aïcha nii ci lupp bi di nelaw su yaay Aïcha nee na bëgguma def mouvement boo xam donte li ma sama wayjur di def metti na mais bëgguma def benn mouvement pour déranger alayhi salaam nee na mu ni teg ba bët set nakate caq bi fi gëlëm gi gooroon fa la ne bi mu jógee te ci àll la nekk amuñu ndox ñun léegi nu ñuy def yàlla wàccee aaye in fatayammamu sa'idan tayyiban kon sababu nuzul lii di tiim mu ngi jóge ci histoire bi nga xamante ne suñu yaay Aïcha comme ni ko xadis bi nettalee nga dégg benn saxaaba mu ni Abu Bakr yéen de yàgg ngeen a def lu rafet ci diine tay ci raw yal na yàlla fayal aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'il muslimin kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ginnaaw bi ñu sante borom bi subhanahu wa taala julli di salmal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan salaatoog salaam yal na ko yàlla wàccee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla fayal ñu ko moom ak i saxaabaam ak képp ku topp ci sunnay muhammad sallallahu alayhi wa sallam baba keroog yàlla suñu boroom di doon suufam si bu ñu ñëwee nag ci sabab yi nga xamante ni mooy tax nit ki am ruxsa ngant ngir dem tiimi bi ci njëkk mooy iza lam yajidil ma aw wajada minhu ma la yakfihi li tahaara mu ne bu fekkente ni amuloon ndox comme niñ ko nettalee léegi ci ci xadis bi mooy ni bu boobaa mën nga dem nga tiim ndax gisoo ndox wala li nga yor ci ndox doyu la bu doon sangu set la nga yor tuuti ndox boo xamante ni sangu set da cee bokk ci li ñu waxoon ci arkaan yi yéene ak tooyal sa yaram yépp ba mu tooy te la nga yor ci ndox mënu ko mu ne boobaa na nga tiim wala la nga yor ca ndox boo ko jëfandikoo ci tukki bi ci am set am mar dina la rey nee na boobaa na nga jëfandikoo ndox moomu pour naan te nga tiim jëfandikoo li nga xamante ni moom mooy suuf si boo ñëw ci xadis bi nga xamante ni xusay mu ngi koy nettali mu ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam de mu ni moom dafa demoon ci benn tukki dafa demoon ci benn tukki bi bët setee nee na mu ànd ak janaaba moom mi ngi ànd ak janaaba te amul ndox nee na la mu defoon mooy dafa tiim jiite mbooloo mi julli suba kon da ngay dégg ci xadis bii tamit ni nit ki mën naa tiim doon imaam jiite ñi nga xam ne dañoo am jàpp noonu la jiite ñi nga xamante ni ci xadis bi ñi nga xamante ñoom la àndaloon te fekk boobu noonu dafa rek tiim ba tey ci tukki mi lu ci bari xisas yi saxaaba yi dañuy dem dund benn événement ñëw nettali ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wala ñu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mbir dar dab leen ñu ñëw wax ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi daal leen ubbee ci li nga xamante ne moom mooy masala yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ànd nag ba tey saxaaba yi mu ne mu fekk benn waay boo xamante ni bi ñuy julli julliwul mu ne ko maa manaaka an tusalli lan moo la teree julli bi ñuy julli mu ne ko dama àndoon ak janaaba te aw ma ndox yonent saa sam ni ko alayka bis said fa innahu yakfiika mënoon nga rek tiim ci suuf si doyoon na la sëkk ci bi nga gisulee ndox waaye fii borom xam-xam dañ cee dugg leeral ci ci ni boo amulee ndox ci fi nga nekk ka nga mën a laaj nag mën a dem uti ji ndox na nga ko uti ji ba ba mu koy tële boo ko tëlee boobaa ci la tiim gi nag di nekk ci yow loo xamante ni waajib lay nekk beneen bi nga xamante ni ba tey dafay bokk ci li nga xamante ni nit ki bu amulee ndox mën naa tiim mu ne iza kaana bihi jaraha bu dee nit ki dafa am ay jam-jam bu dee ci jamonoy saxaaba yi ñoom seen deret lañ doon joxe ngir islam gi law jaraxa boobu noonu mooy ay jam-jam ñu ngi koy remplacer jamono ji ak ay dagg-dagg yoo xamante ni mënul supporter am ndox nee na boobaa na nga tiim ndax ka ko defoon ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak i moroomam amee war a war a war a war a war a war a war a jàpp amul ndox mu ñëw laaj moroom yi ñi leen man de dama bëgg a julli waaye awma ndox ñu ne ko foog nga am ndox nag de ñu ut ndox ba mu jëfandikoo ndox mi bi mu jëfandikoo ndox mi mu infecté mu faatu bi mu ñëwee ci yonent salaam ñu ne ko diw di dafa faatu ndax wax ko nettali ko mu ne leen rey ngeen doomu jàmbur ji ndax doyoon na ko sëkk rek mu bañ a jëfandikoo ndox mi ndax bu jëfandikoo ndox mi da koy lor mu dalee rek jëfandikoo lii nga xam ne moo nekkoon asaid a tayyib muy suuf si wala jumtukaay boo xam te mooy jumtukaay tiim ba tey kon da ngay dégg ni foofu bu dee ni am nga plaie boo xamante ni bu ko ndox mi laalee mu infecté islam dalay sharia dalay sartal pour nga pour nga jëfandikoo lii di tiim mu ne bu fekkente ni dafa nekk ci sedd boo xamante ni sedd bu tar la am nga ndox bu boobaa mais ndox mi boo ko jëfandikoo ba tey mu lor la mu ne boo boobaa na nga ko bàyyi nga nga nga nga dem tiim bu fekkee am nga jumtukaay boo mën a tàngalee nag boobaa ne na nga jumtukaay bi nga tàngalee ndox bi nga soog koo jëfandikoo waaye bul lor sa bopp yàlla nee na wala taqtulu anfusakum bu leen rey seen bopp ndax yàlla defal nañu jàppandal ci saay boo xamante ni amoo ndox mu ni ba tey bu fekkente ni am nga ndox waaye fa ndox ma nekk insécurité moo tax mënoo fa accéder insécurité boo xamante ni mën na nekk ay agresseur ay nit wala mu nekk sax ay xaj wala ay mala yoo xamante ni boo demee di wuti ndox mën nañ laa agressé bu boobaa nee na doy na la sëkk nga tiim bu ko defee di nga am lii di laab jumtukaay bi ñuy tiimee nag mooy suuf wala ban ba ci xeer yi nga xam te moom la ñuy wax xeeru tiim ni yoon saa salaam jàngalee tiim nag kii di Ammar moo tukki woon ci tukki ma amul ndox te mu war a tiim xam ne tiim la war a def mais xamul nu ñuy tiimee waaye xam na ne suuf si la ñuy jëfandikoo pour tiim ba tey saxaaba yàlla ñu yàlla fayal masala yi ñëw mais lu muy gën di dem ay yeneen masala di ci génn nee na comme que xam nañ suuf moo koy moo koy moom la ñuy tiimee rek mu bërëngu ci suuf si bërëngu ci ba yaram bi yëpp daal di kii rek mu jug rek taxaw daal di kàbbar bi mu ñëwee nettali ko yom saa salaam yonent bi ne ko doyoon na la sëkk rek nga def nii xadis bi dafa ni nga def nii bi dafa yom saa salaam dafa wax nan la ko defee loolu mooy kayfiyee bi dafa sëpp ñaari loxoom ci suuf suuf si bu doon am na lu taq ci loxo bi nga fëgg ko nga fëgg ko moom set nga jël sa kanam gi mu saax ma saax ko lépp lu laal ci sa kanam gi comme niñ ko waxoon ci ndox ba lii ba fii lépp sa loxo bi romb fa ba ci sa baxu bakkan yi nga xaw ko laal ba mu leer li fi nga war a laal masaax yépp masaax nga ko nee na nga jël sa loxo ndeyjoor bi masa ginnaaw loxo bi jël nii xajji baaraam yi xajji ko xajji xajji defaat nii jël bii xajji xajji xajji ba baaraam yi mat mu ne jeex na mu ne ko doyoon na la sëkk nga def nii ke ngay bërëngu kon saxaaba bi nii la ko alayhi salaatu wasalaam jàngalee ni mën nañ ko tiim tiim nag boo ko defee ni ngay amee laab laab boobu ngay am da lay permettre la nga xamante ni ba nga jàppee wala nga sangu set la nga ca mënoon boo tiimee di nga ko mën def mooy nañ ko waxee woon ci xutba yi nga xamante ne mooy xutba yi passé ba tey tamit fi ñu jeexalee muy lii toj tiim lii tox sa tiim yàqu maanaam amatoo boobaa laab mooy lay firi lii di njàpp boo amee jàpp lay firi njàpp ma nee na loolu moom mooy lay toj tiim lañ ca dolli nag moom mooy amoo woon ndox soo amee ndox sa nji sa tiim ba toj na amoo woon ndox léegi am nga ndox nee na sa tiim bu toj na dama nga jëfandikoo li nga xam te moom mooy mooy mooy mooy jàpp bu dee jàpp nga war a def wala nga sangu set bu dee sangu set nga waroon def ba tey tamit li nga xamante ni dinañ ko wax ci tiim mooy tiim mën nga tiim di xaar waxtu am na yoo xamante ne dañuy bàyyi ba waxtu bi jot ñu soog a tiim am na ay masala yu ci ñëw boo demee ci mazahib yi bari na waaye possibilité bi ñuy nga xamante ni yoon saa saam jàngale na ko moom la ñuy wax mooy ni mën ngaa tiim xaar waxtu julli comme mën nga julli benn benn tiim mën nga cee julli fukki journée bi yëpp mën nga cee julli say kii tànk njàpp bi tëjul tànk njàpp bi tëjul kon lii tamit masala boo xamante ni ñëw na ci lii nga xamante ni moom mooy liy firi liy tax sa jàpp sa tiim yàqu li nga xamante ni tamit boo demee ci nawaqidul wudu liy tax sa njàpp fireeku mu laaj tuuti leeral mooy masxu almara laal jigéen boo demee ci laxdari dañuy wax ni in qasada lazata aw wajadaha bu dee ni danga kaa laal fekk bi nga koy laal intention bi nga amoon pour laal jigéen bi mooy am ci bànneex nee na boobaa nga laal ko nga ñàkk koo laal dama nga jàpp ji waat in qasada wazat lazat aw wajadaha bii nag da nga koo laal fekk loo nga ci namoon nga am ko ca ba tey sa njàpp fireeku na wala bu doon tiim la sa tiim da ngay dem nga tiimi ji waat in qasada lazat aw wajadaha waaye mën ngaa laal jigéen jublu woo ci am bànneex amoo ko ci boobaa sa njàpp moom ba tey ma nga fa ndax yonent saa salaam suñu yaay Aysa moo nettali xaalis mu ni mu ni yonent saa salaam ñëw na jàpp ba pare di julli ji nee na mu akolaat ko mu biis ko mooy baat bi alqubla fekk mi ngi woor sax yonent saa salaam daal ni loolu de yàqul tojul njàpp yàqul tamit koor bi kon alayhi salaatu wasalaam moo jàngale loolu kon da ngay xool kon yow sa intention ndax ku ci nekk xam nga li nga xamante ni moo nekk ci yow loolu la yoon saa salaam jàngale ci laal jigéen bu dee tamit li ñuy wax ni day firi am njàpp mooy massu zakar nga laal sa kanam foofu tamit borom xam-xam yi indi nañ fa ay wuute bu dee ni bi ngay laal sa kanam da ngay sangu romb ko te loxo bi dañuy wax bi baatilil kaf fi fii bu dee ni da ko laal sa kanam te fekk ni da nga doon sangu comme nga doon sangu set sangu set bu ànd ak jàpp boo paree mën nga ci julli mais boo ko laal sa jàpp fireekuwul ci noonu fireekuwul ci noonu ndax yoon saa sam neen bu boobaa na nga ko jàppee ne comme cër bu bokk ci yow comme loxo bi bokk ci yow wala nopp bi bokk ci yow ni nga koy laalee waaye bu fekkente ne na anam ba nga ko téye bokkul ak anam mii boobaa sa jàpp dafay fireeku bu dee jigéen du téye dafay laal boobaa la muy laal nan la ko laalee loolu lépp boo duggee ci masal yi da nga koy fekk ci tënk mbokk yi suñu xutba yi ñu def ci ñetti jumaa yi firiwul léppi tahaara waaye joxoñ la ci ne dañoo war a dem gis ju lii di laab ndax mooy miftaaxu mooy caabi ji nga xamante ni li gën a màgg ci jul ci ci jaamu yàlla muy julli moom moo koy tijji ak yeneen jaamu yàlla yi nga xamante ni yëpp làmboo na ci tahaara loolu noonu lépp boo amulee laab doo ko mën a def kon soññ la ci ñu dem gëstu jiwaat bu baax li nga xamante ni moom mooy téere yi ngir xam nan la ñuy jaamu suñu borom yàlla ñu yàlla nangul rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين أقول ما تسمعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله Douglas está pescando um peixe.